yéen kaay yëg Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf gëstu bi waa ANSD def ba xayma ci nii askanu Sénégal toll moom la l'observateur xëy tooge yéenekaay bi agence statistique démographique ci seen recensement général bi nee nañu 18 millions 32 ñoo yeewoo ci Sénégal xaaj ba mu di 50 pour cent yëpp ay jeunes la ñu toll ci fukkeet ak juróom-ñeent moo waral yéenekaay bi di l'observateur def ab taxaw ci réew moo xam ne population jeune yi ñu ëpp ndax loole lu baax la ci réew mi am ndax safaan walay doon mi ngi ciy waxtaan ak i boroomi xam-xam yu ci mel ne docteur Momar Diong enseignant chercheur en géographie ak Magay Gay dip économiste international yu bari ay jeunes dëgg la lu baax lay doon ci réew mi waaye ab lay doon it ci seeni famille ak ci état bi état bi njiitam di Macky président national moo nekk ci xët mu njëkk soleil national moom ak général Moussa Fall mi jiite gendarmerie nationale yéenekaay bi nañu ci ndaje mi woon démb jëmoon ci daloo siège bu état major bi président de la république Macky xam ne na fa yéene ju am jëm ci ñu yokk li mub gendarme yi nee bëgg-bëgg mooy fii gendarmerie am na juróom-ñeenti légion juróom-benn section de recherche ñaar fukki compagnie ak juróom ak ñaari téeméeri brigade yu manqué juróom 195 te njiit réew mi Macky wax na démb ne fii danañu recruter fanweeri junniy gendarme ak juróom réew mi quotidien nañu njiit réew mi taxaw na temm ci xeex insécurité gàddu na jaas ji fas yéene dog boppu terrorisme trafic de drogue pirate maritime pêche illicite cybercriminalité ak anam bu ñaaw yi ñuy nemmeeku ci réseaux sociaux yi lise ko nañu Fall bi ñu da doon waxali yónni waatoon démb ca direction générale des élections ngir mu jëli fiche de parrainage Ousmane Sonko yi di Ayib Daffé demaat na démb waaye kenn joxu ko fiche de parrainage yi kese la fa duggee loxoy kese la fa génn génne sursooy ne ko moo tax it bu mu génnee yàq na leen xem si du bind na direction générale des élections acte de njaaxaanaayam xeltee na ci ndax justice bi jël na dogal DGE lànk ne du ko def Moundiaye Cissé directeur exécutif ONC 3D ni ñu ci xët njëkku yéenekaay bi li ñuy gis ni bu dakkul dinañu gis ci réew mi ay contestation laata élection yi gis ko ci élection yi gis ko fiit après élection yi ci xët mu Sonko yi am na beneen recours bu ñu yotaat waa Sénat commission électorale nationale autonome la ñu cay sàkku mooy comme direction générale des élections nanguwut a jox Ousmane Sonko ay fiches de parrainage am na Sénat substitué jox leen seeni fiches de parrainage wutum parrainage ci réew mi bés bi le nañu luusa nga ca yëral xët mu njëkku yéenekaay bi am na ñuy dem ci nit ñi di jënd seen identité ci ab reportage bu mu def ca banlieue bu Ndakaaroo fa la gisee nit ñi ñi ngi jënd identité yi ci jàpp 5000 am ku wax ci yéenekaay bi ne jaay na 500 fiches ci million ndax gaañi ay parrain lañu soxla moom nag parent ñu déchargé wu ci politique bi jël sunu làmb wax ci làmb ji war a am dimanche ci diggante Modou Lo ak Ama Baldé Modou Lo mu xam ne combat bi sama combat maa ngi xaar Ama Baldé de pied ferme libération mel ne ku naan mi ngi xaar waa Pikine yónni yàkkamti ko mi ngi xaar koo xam ne Pikine gi yépp a ngi ci ginnaawam firnde li libération nee nañu mooy ni maire bu jidda caare ko Mamadou Gueye doxalee ak moom Ama Baldé moom directeur général des domaines di Mamadou Gueye keroog bi Ama Baldé di def open press ci stade Alassane Djigo ma nga fa woon àndoon ak supporters yu bari demoon doon ko jàppale ak di ko dolli doole ba jox ko fob drapeau impôt yemu ca ndax it jàppale na ko ci wàllu koppar baaxee na ko ay bus jëndal na ko ay ticket lépp rek ngir bëgg sëll bu ndaw di Ama Baldé indil waa Pikine couronne bi Kati Diop di ñu jàngatal combat bi ci journaliser ko nee na combat la boobu kenn mënu fan lay mujje combat la bu ubbeeku ndax ñaar ñi ko séq muy Modou di Ama Baldé kànn ci ñoom du ci dellu gannaaw sticker rapido Touba Darou Salam Caro Prestige DSL ak seen marque bi di Dekakila